gaajam no i jega jama moom refo no rek waaw soox da sooxiim sax ref no caleles rek waa compétition rek waa comme nem garta toujours i waa xeɗa roog a ci'am jangin rek mera 5 millions waaw waaw waaw mais xeɗan ta ref rek bom jangin waa anda rek reɗu no préparation gañse nawaja combat retkiro wasin maga parce que o ndeɓo njegu doole yooɓe aussi quoi aha an birama toloru no combat ade wago ye sade yo est ce xay kim joma xaw sax a ah. ah, wawe mo jeg adversaire oxu ƴuf wa refi teen kon merci de xalil xana fi nangul wax yaal joof yoor tede tede ley asan waay laga ndongo tabor walwa kuco sane hay dudu hay dudu hangog dudu hangog oh, naser hangog dudu hang 15 ou bien 16 waaw 15 16 15 ou bien 16 waaw mooy 15 rek waaw 15 kan lay nekk 16 ah 15 kan lay nekk 16 après après léegi tey tey 15 nangaan 15 nangaan waa 15 ndànk waaw noonu la jaadu na de. waaw waaw incha allah dina ko doon. ñu si premier tour maa si waaw. kaw la waaw waaw si géej gi la nekk géej maa si géej gi de. diisul tey. diisul. non diisul damay bëre poids lourd sax. na ay favori de. mais dara bëre rek. ah mais xana leer xana leer de bila Tambamir ah, maa ngi nii de ah, gis nga maa ngi am jàmm Koña dafa mel ni nga foo miin waaw ñëw naa foo miin waaw du gan man quoi pour gars yi ma leeral leen kii moo njëkk a bëri fii waaw lu leer maa njëkk a bëri maa wati ji bi ñu koy immigré ñu ñoo ko immigré bi ñu jógee man Sambala bébé Diène Franc Ah, ak Sitor Sitor bu Faas. loolu ñu ko xam bëriwul. Eh, ñu ah, maa ngi ci Paa Lissé waaw. pourquoi nga dem Lissé. non sama nga si diggante bi. ah kon nga màgg si diggante waa gis nga. kon dina maa ngi lay bëggee di la ziar. Ah, sant yàlla. waaw maa ngi fi nekk Grand Yoff lër rek xam nga bëgg combat quoi comme gars yi boo wàccee lu bëri du la jël waa day laaj nag sanga mu sanga aju quoi waaw waaw te boobu boo gisee ñu bàyyi suñu lépp bëri doon moo tax ñu bàyyi suñu lépp te fii bu ñu fi duggee nii wàcc ko mu rek moo tax ñu koy def waaw yee loolu la maanaam xam tey boo taxawee si douze combats dix victoires deux défaites daan ay champion yu mag si làmb te ñu war la jël mun nu la jël loolu kenn comprendre quoi te damay mobiliser man dama dama am supporter dama am supporter xam nga ku Kayar rek sa ginnaaw Grand Yoff kees loolu dul ndaw ko wóor na alxuraanu karim te ba pare gaa yaa ngi taxaw pour préparer ma jëndal ma ay bologu bee loolu yombul barke Serigne Bamba. billaay wallaay wa taalaay wallaay azim. tey dafa mel ni poids ñun dugg na làmb bu ne. dugg na làmb bu ne xam nga ku bëre si ay cent dix cent dix litres nga tombanteeg loolu xam nga mu nekk benn poids. foog naa ak ak loo mën a dugg tamit jaaxal quoi. te mi tey bu nekk 32. dañu ñaan yàlla yàlla def suñu wërsëg rek ñu jël ko quoi loolu la ñuy ñaan. sant mais sa waay. na xam nga ziar. naka si si jàmm ba. ma fekk la Ndiaye daw ñëwaat fi. waa dama ko jëlaat rek. si kàttanu yàlla. dama ko jëlaat. tegal foofu sa baaram. Ndiaye Ndiaye da ñëw daanu si raw gàddu ñëw yëg a të. waaw mooy gën boobu nga daal. ah kooku moo gën a ndaw si sax ñi may daan moo jël 1000 litres nga ñëw nga ñëw moo gën a ndaw si ñi daan eh. wóor na yàlla su ma ko moom saako tàngal du maj dara wóor na sóoraale ma ko sax non garaal man dara disul si man waaw si kanam la ñu xool mën nga maa ëpp mais buñ bëree maa yow si nga xam ba xam na si kanam waaw damay lekk waaw incha allah sa waaw sonam ngeen daan rek di teg bandi kenn gisatu. non gis nga xam nga rek nekk si kii rek xam nga ñu làmb rek moo suñu activité buñ paree si leen koy fàtte day ne si leneen. lan moo tax nga dëkkale sa bopp demi final quart mais sport la rek xëy na chance bi fa la yemagum mais làmb doon na neex yow ñi xam fara dëgg. xam nañu fara da doon. fara mañ daan gis. waaw fara mañ gis fan yi bokkul. àdduna sax laay wax nit ki léeg day day nekk si benn mbir muy dox di dem ba jékki-jékki mu taxaw lool mun da ñaax nit ki mënoo établir sa dessin mais man gëm naa ne lépp day baax incha allah xanaa déggoo li mu la wax jeex. incha allah si kàttanu <laughs> Simon. mais mieux yi rek. gis nga moom men rek mieux ñoo joor rek. comme ça le. ah Guiano. temps fee laajun. Ah. xëy na au gar est-ce que poids lourd que média. Ah, heɗaro taciyam o drapeau le mbisin soom ɓe ngawmo meek miña xeta fo den axa ino fop natango i ndef rek axa maafo ke an neew te maafom wala o maafin mbatino soom a jega wa andoona yee meek maafa den tefa adnoona jega wa adnonga wa maafama <laughs> <laughs> Simon encore ah, yàlla ñoo dóor Simon Simon xa xa Simon Diouf pour pour Ndiobo xaw. non dara j'attendais Madou rek mais mieux ten quoi i bonne chance waaw inshallah jaajëf ancien bandi bandi day cuub drapeau bi jëlal loolu grand moolul moolul goyaan bi naka ma lépp jox nice forcé de waaw tey maa ngi si de waaw nekk si xam samp fan yii samp naa naa fa taayale dama fa jógee ñëw Dakar mooy 3 millions yi du du jël ma gée keroog maa fa ñàkk demi final dama xamoon a gaañu nag du entraînement quoi ma dalluwaale waaw mais saa yi ñëwaat na. saa day saboté quoi. Qatar mu ngi fay mbëri. waaw day saboté ma naan delloo ko Qatar gaan ban Qatar Qatar amu fi de fépp a métti. Saalum Saalum samp na fépp a métti fépp a métti. dana Saalum métti na fi métti. waa poids yi moom xamul nu mu man tey bi ñu ñëwee billaay wallaay maa ngi wax sama man tey waroon nañu bind 64 poids lourd 64 raw kii quoi parce que comme que arène bi li yombul waroon nañu mën a loolu quoi. balance bee tax yéen yéen lesee si àll bi nangu wu ñëw ñëw. naa itam loolu la léegi lépp mën na si nekk mais instant yi war nañu mën a génn prix itam yi dañoo am combat quoi moo tax ñu dallu yeneen gars yi itam nga xam ne yàlla dogal na Euh, parce que loo gisee yàlla moo koy dogal yàlla dogal ñu xam na si teranga instant yi forcé tuñ ay combat parce que ko wax si benn site na parce que lamb moo ko dogal si ñun nit ki li doon defoo ko sa bopp yàlla ko def comprends mais jàpp nañ si yéen ñi ngeen lancé ñu dimbaloo ñu jox mbëru simple gaan seen drapeau bi. xam ñoom xam nañ ne yàgg yàgg mbiru simple ñooy téye lem kii. du xeex. <laughs> waaw loolu la demee nag. yàlla bii baax na birom bisin. waaw waaw. rek. jaamu ko de. waaw loolu aha. maa fuudi. i ka poids lourd mi de. Eh. naa ngay daa. Eh, non non. xa taxu nu nange kaasa 32 ke nu mbinta rek 32 32 to njom wara ret ba 64 100 a c'est normal war e kaaga moom war e waago jega ten quoi i mbir ko moom a ngara ka mbaro mbindeloyo e rek i yaam o kiino kiin a genre ref jego to ko waɗiid ande ndax na weta ngañ na waaga u chance den ndax nam o leŋ ande waaw i wene mbañ na mbin chance den a mbara ndef ten to mbindaan waaw naaga dafa mel ne dégg nga am na combat arène a am na combat non non amaguma. Ah. non waaw bëgg naa bu baax waaw. waaw dinaa bëre kay. Ah. loolu rek xaar. man ñi may am rek. waaw. day nekk ay favori rek. waaw. waaw ñeneen rek. non non pourtant rek. gars ñoo ragal rek. ah dama lay xam. lu tax ñemewul. Ah, yaa non dinaa dugg incha allah. Ah. Idi bu Ngëriñ. dégg Idi bu Ngëriñ moom. Idi. Idi bu Ngëriñ wala Jackson. rek. bu ah. ñu taxaw ci loolu rek. Ah. ñu soog ci wax waaw. waaw ñu soog ci wax. incha allah waaw. bonne chance. ok merci beaucoup. Balde Balde. boy Khalil. boy bi day teg bandi quoi day teg bandi quoi. <laughs> sant yàlla. naka tey. cool nice. tey da ngaa da ngaa ñibbisi. waaw da ngaa ñibbisi moom nangul rek. ay ñibbiseeg yooyu yëpp du dara <laughs> man loolu yëpp du dara. da ngaa woon dem si àll waaw da ngaa fay <laughs> bu naa am. tey tey ñu gis Jacob ba ni ko daan gis si àll bi muy compétir wane boppam tey Jacob ñëw arène nationale bi nga xam ne miin na ko tey ñëw compétir si poids <laughs> day sant yàlla rek day compétir rek waaw kese. tey Jacob bi gis ak Jacob bi ñu gis tey bokkul benn la de amul si changé oh. day compétir rek. mais Jacob ma Jacob fu mu toll combat arène fu bi. Jacob. taxaw fii dugal fii waaye boo si wax rek waaw boo si wax. naa est-ce que ku. waaw tey ngi nii rek. dëggaay wagaay après koor gi rek incha allah rabi man a ngeer. waaw. après koor gi. waaw réew mi dina daal Diofior dina yëngu. waay fépp ay yëngu nga naan Diofior yëngu waaw. waaw am naa client bu mag kay suñu grand guerre di nuyu rek xam nga di ko ñaanal jàmm ba bés ba rek waaw. ñu gis keroog Doudou boppam ñu ne waat déet ngeen jëli ndaamal daaru indiwaat ko mu waat boppam. waaw yaa nga war ji. waaw non dara man moom xam nga ne man sama affaire du yomb waaw incha allahu rabi niñ ko doon defee démb ak barki démb rek. lii jël si tournoi lii jël làmb ngeer. xëju si ngeer. non napp moo ko. yaa ko wax ne. da koy may nag. waaw non loolu amul programme dinaa ko may nag bu mu def si kii bi bu mu def si regroupement bi quoi mais na ñëw bëree ma jàpp ko daan ko ndànk mais bu mu jéem a ne fii sax naan day naan day dëgg boppam di xeex senegal ah, Sénégal àdduna dinañ dañ si man waaw dama koy bañ a gaañ na ñëw ñu bëree ma jàpp ko ndànk daan ko parce que du mën a ngeer sama dama am yoon. <laughs> waaw. baax na ngay fanaanoo mer kon xaw man nga gaay doon <laughs> ngeer bu fanaanoo mer. waaw mais yaa ngi baax na di ko ñaanal jàmm rek jantal grand ga quoi parce que moo may sens. waaw si côté lutte simple bi quoi amul benn programme di ko ñaanal jàmm rek ba bës ba allahu rabi waaw. bi gaay wa gaay maa leen raw léegi rek léegi ma wàcc. waaw Ibou Ndiaye rek daw wër géew bi loolu jar na jar waaw waaw waaw waaw waaw wow wow wow dafa wow dafa doy waar mais nag yàlla baax na waaw en tant que leader 34 leaders yi nga xam ne gars yi di bind bañ guddee bi quoi guddee gi nga guddee gu métti gi nga ñuy bañ mais 34 leaders yi mënoon nañu ko xaw a yokku nag sax bàyyi 40 yokk si beneen 5 personnes mais nag bon comme CNG ñoom ñoo xam li ñuy def waaw euh, di leen ñaan rek yàlla suñu borom gën a jàppale si job bi ba ñu gën a yërëm bëri gën ñoo jàppale gën a yokkaat affaire yi war nañ mën a dem sax ba cinquante affaire yi amateur dañoo war a ah? balance bi ànd waaw balance bi non balance moom ànd naa parce que sama genre yi nii bu balance amu woon poids ga sa gaay wàcc bëri. waaw boros. mais waaw waaw. ñeef yi dañuy dem balance. day day neex ay boo yooyu noonu dañuy neex a gàmb waaw ay waaw ndam daaru mais soo waxee ñu ne poids bi xam nga booy itam duñ jël risque gàmb yi ñu ñu koy ñu koy ñu siy perte yenn poids yi parce que après gàmb ji mooy ko te gàmb dafa laaj nga am tuuti poids waaw mais nag yàlla baax na quoi nañ ñaanal ñëpp jàmm rek doom day na mën naa a après di jox gars yi rendez-vous réew mi dina yëngu waaw da ngay ñëw Diofior soo ñëwee ñu toog waxtaan def émission yow bàyyi préparation combat bi rek incha allah rabi. foo dem. waaw moo ngi nii de. si loolu ne. lépp jàmm kay. sant mi mi ngi gisoon keroog la gis tey bokkul de. waaw gis nga liggéey rek. war ki yàlla. dafa mel ni gars yi loolu. moo tax ma wax leen ne man man waa ren ren daa ngi so bi ma sama première fois may bëri arène nationale waaw c'est que xale laa quoi daa a dugg si poids lourd billaay waaw gis nga yàlla dafa def bi tër dama ñaan yàlla jël yàlla yàlla dafa def jël ma jël si si jàmm rek incha allah waaw lu muy yi si gars yi la de gars yi kuñ jox sama avance day daw mais man pare naa pour pour bëre arène quoi waaw pare naa pour bëre billaay di bëgg waa Kër waa Gandiaye waa Cupaan waa kaw Kaolack yëpp daal maa ngi leen di bëggee bu baax. jaajëf. diggante ñagas de ak gan gi xaw ma turam nag waaye nee naa la lii mooy mbapat mbapat lamb traditionnel la fi ngay gisee combat dëgg ñagas de moo sol moo ngemboo ngemb lu weex li gan gi moo ñëwoon ginnaaw nii borom ngemb lu ñuul li di leen fàttali ne si journée jax la jax mi nga xamante ne mooy jàppale gone yi nee la day jël ci benn ngoon joxe ci ay millions yu bari ku daan yóbbu sa kër combat baa ngi noonu ñi ngay damante ay baaraam Dibocor sañ Dibocor Dibocor a ngi puus Dibocor a ngi koy puus ñagas bañ na ñëwaat nañ ci diggi géew Dibocor ak ñagas ñagas Dibocor sañ ak ñagas Dibocor ak ñagas Bas Ngel Dibakor ñagas Dibakor ak ñagas Dibakor jël na tànk ba jël na tànk ba wol bi daan na la hee Dibakor sañ kookoy Dibakor kooku moo dem drapeau chef de l'état trois ans musta dégg mu kookoy Dibakor sañ moo ngi noonu Babou Soudiane Bass Nguel Dione Babou Soudiane Bass Nguel Dione Babou Soudiane Bass na ko Babou Soudiane bañ na Bass Nguel ngembul bulali ee eh, Babou Soudiane Bass Nguel Dione Babou Babou Soudiane Mbass Nguel Dione Babou Soudiane Mbass ñoo ngay damante baaraam cey Doudou Sané koy koy xadda fi joof yor Babou Soudiane Mbass Nguel Dione Babou Soudiane Mbass Nguel Dione Dibocor Sagne a ngi noonu Babou Soudiane ngel Nguel Dione Babou Soudiane Bass ñoom ñaar ñoo ngay jàppante takk na ko Babou aan takk na ko Bass bañ na ñoo ngay dal arbitre àtte na nee leen kaay fii nañ Mbos Guel Dione par avertissement Babou Soudiane daan na lan kii dafay ak Fara Joal Jacob Jacob Baldé ak Fara Joal Jacob ak Fara Joal ndeysaan Seex Juuf a ngi noonu Jacob Fara Joal Jacob Jacob ak Fara Joal ñaar ñu bokk écurie ndeysaan hey Jacob ak Fara muy premier combat poids lourd arbitre nee na leen di ngeen bëre de. si ko Cheikh Mouhamadou Ndiaye. Jacob ak Fara. ne. Eh! ay waay. Jacob ak Fara Joal. Jacob ak Fara Joal. jaraas ke jilaas ana mbar ngoox a ciyo ngoox xam warano ngoox ciyo ngoox fara jaxaw ci geewu jaraaf yi dinañ la may nag réel la nag ba tudd Momo non après après woy bi ne ko Momo Ngom ne Babou Ngom amul loo fi def ci culture séeréer kon Momo Ngom tëggal kon Momo na tëgg eh Fara na ñoom ñaar ku nekk am na avertissement Jacob ngi noonu kii mooy Cheikh Cheikh bismi defet Cheikh Diouf Jacob ak Fara Joal ñoom ñaar ku nekk am nga avertissement Jacob Fara Joal Fara. Jacob Baldé Fara. dañoo ñoo bokk équipe. ñoo ngi koy leewatoo ndeysaan. non kii Fara laay Baldé la nekk. benn la nekk waaye ku am sa kër bàyyi nga yóbbu. kër ko mbapat sa kër bàyyi nga waaw waaw. Idi nee na ku am sa kër bàyyi nga yóbbu bëre. <laughs> kon mbayu Momo Ngom tëggal mbayu lu ma ngay wax deful boo tëggee da ngaa war a tëgg Jacob ak Fara bëre leen ee eh, bëre leen eh. yat bi da dal Jacob ak Fara Jacob ak Fara ñu ngay puusante Jacob ak Fara Joal Jacob ak Fara Joal fara bul ma yàqal waaye Jacob bu ma yàqal Jacob ak fara Joal ñoom ñaar ñoo ngi ci biir Jacob ak fara Joal Jacob Jacob ak Fara Joal ndeysaan Jacob ak Fara Jacob ak Fara ee eh, ñoom ñaar dinañ wasin ba ñu dem tool de Jacob ak Fara dinañ wasin ba dem tool waaw Jacob a koy ngoobu mu ngi koy ngoobu di ko dugg di ko aspiré moom Jacob Baldé doomu Jules Baldé bi. walaay ndeysaan dafa doon bëre. nee naa la doomu mbër dama jàng bëre ndax yàgg yàgg dinañ la mos a ñam. walaay ndeysaan ñoo nga jox. Falaay koy ngoobu moom. Jules Baldé baayam. Jules Baldé baayam. baayam. walaay ndeysaan. Eh, Fara. Eh, lii mooy Sénégal Ndiaye. Eh, lii mooy Sénégal. pause. dem nañ pause. ku nekk am nga ñaari avertissement. Jacob Fara Joal. Fara Jacob ak Fara. ñu puusante. Jacob ak Fara Joal. gaaw eh, la Mara de Jacob Balde ak Fara Joal Jacob Balde Fara Joal Cheikh waa lii lan la. waaw waaw. nee la. nee na maama moom borom dëkk bi. Jacob Balde ak Fara. yéen ñu puusante lii comme guerre. Fara Joal écrit Bab Boston. Jacob Baldé Falaye Baldé Jacob Baldé ak Fara ndeysaan xoolal ma ngóor ñaax hee soow mali topp na ci ne ko maa la mën xoolal ma li ak soow mali hee ngóor ñaax ak soow mali <laughs> Jacob Fara bëre leen Canales. Jacob Baldé Fara Joal eh. Jacob Baldé Fara Joal Jacob ñoom ñaar seen bëre bi yàgg na waa série de Grand Yoff Jacob Baldé Fara Joal ngay wax ñoom Jacob Fara Joal fañ na ñoole yaay na bugaan korsi gañaan yaan le gañaan kumba yee gañaga salaam may na jeere na ñoole yaay na bugaan korsi gañaan yaan le gañaan kumba yee gañaga salaam may yaay na bugaan góor siga ah, a xolam a góor ñaax xolam

Ndiol bu Sana ak Gilbert Ndiol bu Sana ak Gilbert Ndiol bu Sana arbitre ngay wax ak ñoom arbitre ngay wax ak ñaari mbëri Ndiol bu Sana ak Zulbert Ndiol bu Sana won leen ginnaaw Zulbert won leen kanam Ndiol bu Sana ak Zulbert Ndiol bu Sana ak bu Sana ak Zulbert xale yi buñ magee ko tey nga yaakaar ni avertissement Julbert Ndiol bu ak ku ci nekk am bañ ko ragal. message très fort. buy tàggu ko. doon fekk la ñëw ñool bu soxna Fulbert. waa ñii tamit. un seul couloir nekk seen dëkk bu la dem. ki ñool bu soxna ak Fulbert. ñool bu soxna ak Fulbert ñoo ngay léewtoo. di ngàddante daa bokk ci làmb Ndiol bu Sana ak Gilbert eh eh Ndiol bu Sana daan na Gilbert di waa eh lii la la ba waa eh da koo jéggi de waa Ndiol mi Ndiol moom doomu Joal la jël bu rëy la daan da nga nekkoon ci waxtaan bi waaye Ndiol bu Sana daan na jël bu rëy day yëngal. ñaar lañ. Murong Ndambe. Seydi eh eh, eh eh eh daanoo de daanoo de Murong Ndambe daanoo de nee na daa luqeeku Seydi Mbarñi nee na dañ koo luq. ngeen werante seeni barñi moo ko daan oh mburoog nambe seeni barñi daan na mburoog nambe oh da ko luqi woon sànq dem si docteur yi ñëw oh seeni ak mburoog nambe Jacob Baldé Mbaye Délé eh waa yaamu Dakar kan la rey. déedéet du yaamu Dakar de. Eh, eh, kan yow gis nga doon booy bi. xaar may de booy bi xam nga ma naa bañ naa may délégué a nga féetlu ci suuf may délégué Ngoy jéem a Jacob Diofane Jacob eh Mbaye délégué daan na Jacob Ndeye délégué daan na Jacob Mbine Gueye ki bool bool Petersen ak Birame Koungkoung. Mbine Gueye ki ñu naan ko bool Petersen ak Birame Koungkoung. Mbine Gueye ki ak Birame Koungkoung. ëppale ku génn Jacob Baldé may délégué ko génne Biram Kungkung ak Mbine Gayki Mbine Gayki Biram Kungkung Mbine Gayki nee naa leen mu ngi noonu partagé leen abonné abonné partagé leen abonné ndeysaan ñu waxtaan ndeysaan mbin gay ki birom kungkung min gay ki birom kungkung min gay min gay ki Sitor Diouf maa ngi lay nuyu di la ziar Biram Konkong ñu naan ko Caaka Fay Ngunjaan Ngunjaan Ngunjaan. Biram kunkung booy booy Ngunjaan. Simon ñoo jooro ngay bëre. Simon ñoo jooro ci côté bi. ee eh, nee na bëgge bëgge bëgge Aliou Soum Ngunjaan Biram kunkung Simon ñoo joor sampu mooy bëre. ndeysaan ñu leen di wax rek ne leen Jax production tegaat na 6 millions dimanche bii di ñëw fii ci arène nationale birom kumkum mbay ngu njaan Simon Ñoojoor Sitor Diouf nee na làmb moo neex ana usine technique Simon Ñoojoor xaw ma ko. ñaari booy yëpp xaw ma leen. Maadoo ngay bëre ci ginnaaw. Biram Bisin li mu garaaf am. Biram Bisin. am bi njool soo waay. ndeysaan déggal loolu. ma joxoon ko. ah ca ñu ko joor moo leen féete joor waaye combat Biram Gungung ak Boy Ngujaan eh. biram amaare na ko mais demul loolu mooy amaare loolooy amaare tafu na ko mbot mbot rob jogaat waaw waaw lii moo di bëre semb lii ci bëre semb bu rek la am ndeysaan waaye combat bu nar a technique diggante Mbinjool ak technique ah Simon Niodior daanu na Simon Niodior daanu na oh là là favori daanu na. favori daanu na. favori daanu na. quel chute de Simon Niodior. ak Mbaye Ngoundiane. Biram Kungkung Mbaye Ngoundiane. Biram bi si Libidor Ngoundiane. programme de boss usine technique usine technique bu góor a jugayoo biram kunkum ndeysaan usine technique mu ngay bëre ci ginnaaw usine sowal biram kunkum mbay biram kunku nga koy puus usine technique ak windool sowal biram kunku génnee na mbay ngu ñaan benn avertissement si mooñoo joor daanu na libidoor ak biram bisin biram bisin ndeysaan kooku nee na saane saane rek mbir Balla Diaye ko wax ndeysaan biram kungkung mbay ngu ñaan usine technique min njool ndeysaan Libidor a ngay bëre moom ak ki nga xam ne mooy Biram Bisit avertissement min njool avertissement usine technique ak Biram Bisin min njool usine technique Biram Kumkum Baye Ngunjaan min njool usine technique avertissement Birame Mbissine Mbine Ndiol usine birom mbisin libidoor mbay ngunjaan Ndeysaan Libidor Biram Mbissine usine technique Mbine Ndiol technique Mbine nañ biram kunkung biram kunkung ak mbay ngu ñaan biram bisin libidoor dem nañ pause avertissement ak biram kunkung deux ku nekk am nga deux avertissement biram kunkung gañe na biram kunkung gañe waaye jekk si ma drapeau Ami di ñëw 6 millions ngeen fi teg Ami Collé mu mel ni la fi jag si teg delloo na mbatt ca Ndala mais 6 millions bi fan la nar a nekk arène na bàyyi leen Grand Yoff léegi ñoo ngi arène nationale. waaye Dieg sax xanaa léegi moom moom arène nationale. ñoo moom arène ñooy baro arène eh usine technique jël na tànk ba usine technique jël na tànk ba suru xol na ko mbir dool jógaat na bañ na usine technique. Eh. ndeysaan lamb libidoor biram libidoor biram bisin libidoor un combat soog un combat de tension ñaari naataangoo lañ dañoo tolloo doole dañoo tolloo dayoo tolloo taay tolloo lépp kon bu ñu bëree war naa mën a neex ci wasaare ak Fissel Buzz <laughs> ak la puissance. ndeysaan mu ngi noonu. ndeysaan. déggal kooku naan ma seeni bu bari kase. borom Rio nuyu naa la ziar naa la usine technique mbin njool bu sowal ndeysaan arbitre àtte na avertissement Libidor avertissement Biram Bisin Biram Bisin deux Libidor benn Birame Mbissine Libidor Ndiol Moussana usine technique ndeysaan Omar Faye Omar Faye mooy borom nuyoo Birame Birame Mbissine Libidor. eh jóg nañ arbitre ñoo ngay bëre eh Birame jël na tànk ba Birame Mbissine Birame na tànk bañ na li bi bañ na génn na ca eh eh, eh suruxal na ko Libidor na ko penalty lamb penalty lamb penalty gi nii ay boo rëccee ndax dina rëcc ndax dina rëcc ndax dina rëcc ah mu ngay jóg de mais est-ce que dina rëcc est-ce que dina rëcc Biram Mbissine Libidor Biram Mbissine Libidor Biram Mbissine Libidor eh na Biram Mbissine

Omar Faye nee na sama xarit bi am Collé eh ndeysaan dégg ngeen partagé leen live bi partagé leen bu leen fàttee di bës jëm baaraam bi usine am na ku nekk am nga avertissement Mbine Ndiol eh usine technique yooru na yooru na Mbine bañ na eh Ousmane Ousmane jooy na ndax Birame Mbissine jogaat nañ Birame jogal laga korjey président boo xam ne boo ne ko jënd ma Maadou Sarr. Maadou Sarr. technique min njool ba tey ñoo nga usine technique min njool ee yaamu Dakar mooy ñëw ak soow Mali cay libi cay libi door hee combat sok combat sok rajaxe Doudou Sané hee combat sok rajaxe Doudou nga ne ana góor goo luy loo George puwaat ñëwul hee usine technique Raja Haduru Sane combat na waaye lii neexul mor bi nee na du génn làng gi ay waaye may ñu mbor mbay ñu dañoo war. wala ñi ñi daanu premier tour xanaa dañoo war a. dañoo war a dem tëdd taliba. daanu quart de finale di jooy di daanu premier tour nan la cee waay waay PDG. naa puus bu liggéey rek. waa Alxayay. Sidna waa Diofior waa Fimela waa Ndangane. usine technique. waa Ndios Mbour. yan Doudou Sané wala waa Tora ndeysaan. waaye Doudou Sané la jaxe. ak Exit de Anna Mbignor par avertissement ay leen ñu ne ma fan Doudou door na ko ndong Yamou Dakar Mali Yamou Dakar Sow Mali Mali eh tegal eh, na dem. Yaamu Dakar Sow Mali. ñu ngi quart Yaamu li doo ci penalty lamb la Sow Mali

Ndeysaan Ablaye Diop nee na 21h08 yow doon laajte heure bi Konia 2 bu Sana Ndiol Njool. Njool bu Sana nekk nii. ak Koña 2 la jox. Vieux Manga Ndiaye ak Njool bu Sana. Vieux Manga Ndiaye ak Koña Njool. Njool. Njool bu Sana. Modou Sané rek Ndiol bu Sana Cheikh Sey moo Cheikh Sey ko wax avertissement Ndiol bu Sana waaye nëbb nañu benn combat Ndiol bu Sana eh Vieux Manga Ndiaye Konia 2 Vieux Ndiol bu sana à côté Vieux nga Ndiaye Konia 2 Vieux Manga Ndiaye Konia 2 njool njool njool njool daan na la eey njool daan na ko eey mbir njool sana ay doomu sowal ba daan na hey njool hey njool hey

Vieux Manga Ndiaye Konia 2 eh eh eh eh jël na tànk ba eh Vieux Manga Ndiaye jël na tànk ba eh Vieux Vieux ngi ci suuf Vieux Manga Ndiaye ngi ci suuf eh góor ñaax mu ngi fi góor ñaax a ngi fi Vieux Manga Ndiaye Kogna 2 Vieux Manga Ndiaye eh arbitre eh eh seeni bu bari ñi na seeni bu bari ñi na di kor sañ la ilaha illallah eh. Eh,

kooku de biis bi la muy biram kunkung ee ndax ordinateur ñëwul ñëw na waaye binduwul mu ngi toog di seetaan moom ordi biram kunkung biram biram kunkung biram kunkung ak benn booy biram caaka fay wala mën a bi wala mën a bisale kunkung Eh. ay waay déggal kii nee na kii nee na ordi Sané ordi Doudou Sané lay moytu Ablaye Diop nee na ordi Doudou Sané lay moytu moo tax na moytu la ñëw bu ci commentaire bu ci commentaire est-ce que. est-ce que Ordi am na ku ci làmb. <laughs> da koy yii ne moo ëpp doole. <laughs> du samay wax waxu Ablaye Diop la. ndeysaan bi sele kungung. usine technique Sabara numéro 2 Biram Kumba Saga Libidor Grand Yoff Saga den fa usine technique Mame Sara Diop ka apa ñeleke Seen nee na Sane Sane rek Sane ni ka Sabara numéro 2 Kay dom Biram Kung Kung Libidor mbay délégué la mbay délégué la Doudou Sané ak Zambala numéro 2. Zambala numéro 2 lu lu. ay waay xale bi mooy jàmbaar. Zambala luur la bind. Zambala 2. Zambala numéro 2 bi mooy jàmbaar. Mbaye délégué Mbaye délégué Libidor Maadou Sarr Mbaye délégué. Maadou Sarr Mbaye délégué. Caaka Faye ngi ci ginnaaw. Maadou Sarr Mbaye délégué. Bisele Kunkun mo ngi ci ginnaaw. eh eh eh waa eh, eh. birom Kunkun kii def ko ndànk yow. Caaka Fay daan na ko may délégué Maadou Sarr Libidor a ngi noonu Libidor usine technique Libidor del ñam del del xa del tourné del nga ñaar ee eh, Mbaye délégué Madou Sarr Libidor usine technique war a yaama Diouf siyaare anu ndeysaan arbitre la nena na fo Libidor usine am na avertissement usine technique am na avertissement eh Mbaye ak Zambala numéro 2. Zambala mbas mi ñu ñëw ci lutte simple. ah mbas mi ba daan na la jeex na Mayteleke daan na la Mayteleke daan na la. Doudou

Doudou Sané Zambala numéro 2. Doudou Sané Zambala numéro 2. Doudou Sané Zambala numéro 2. Doudou Sané Zambala numéro 2 Doudou Sané Zambala ah ma ne sa bés bi lee la njëkk woon say garaan man ba léegi da koy def Sané Zambala ni ko do wala wa to bay jole ge do góor nga xam ne ko ba Sané Zambala góor nga xam ne ko ba Doudou Sané Zambala numéro 2 Libidor usine technique Doudou Sané Zambala numéro 2 arbitre nee na bëre leen dañoo bëgg a ñibbi Libidor usine technique daan na Libidor Doudou Sané Zambala direct sax mënoo génne image. te traité laaseegul rek. loolu nga jëlu li mu doon ak nee na day dugal recours. Zambala am na هذا تعارف هذا تعارف ولا هذا برده برده Doudou Sané Zambala numéro 2 aca nee naa leen rek muy abonné ndeysaan Doudou laajal Lutte TV laajal Lutte TV Lutte TV laajal Lutte TV yaakaar naa ñu am ko Lutte TV. Sané am na benn mais dina baaxoo leen dina baaxoo leen léegi dina leen baaxoo leen yow supporté woo leen supporté woo leen vidéo. waaw mais wax ko loolu rek wax yow tamit da ngay wax moom. Dourou Sané Zambala numéro 2 Ngor Ñaax daan ñoo ngay wax ak Zambala numéro Sow Mali mooy bëre. Sow Mali. ndeysaan. eh Sow Mali Sow Mali. Mali. Faisal Mali. wax ak moom Sow Mali ngay foofu. Doudou Sow Mali mu foofu. numéro deux moom. na. Zambala numéro 2 Doudou Sané Ndiol bu Sana

Konia 2 daanu na Libidor usine technique Roga Yaay Ja bu Sana ee jël na tànk ee Libidor ee ee usine technique bañ na Libidor bañ na Libidor génn na ci ee attention Libidor jëlaat na tànk jëlaat na tànk wéyale na ko ee usine technique Njool daan Njool daan a fay mbay délégué Caaka Faye Mbaye délégué. waa délégué waaye ñu ko sababu. wala waa Daara day sànq Birame Koungkoung Mbaye délégué. Mbaye birom kunkung bay délégué demi-finale nangay gasser nangay sor mo sor xoyel biram kunkung bay délégué arbitre la fa dem biram adam fari na cama cam bay délégué yor ko biram biram a tiqam da bañ biram a tiqam bay délégué te bañ biram kunkung bay délégué Biram Kunkung Mbaye délégué Caaka première demi-finale ku daan dem finale usine technique mooy ñëw ak Doudou Sané na mooy kuuk kuuk. Caaka Faye Faye délégué. Caaka Caaka. may délégué Thiaka Faye may délégué caaka may délégué ak Thiaka biram takk na ko daan na la eh biram daan biram dem na final biram kunkung dem na final may délégué mo jaay biram kunkung ama may délégué biram kunkung may délégué de may may délégué eh, Biram kumpuko kumputan bai jalakan. Mereka pil musibah. Boy Seras, Boy Seras Ngor Niakh. Ngor Niakh Boy Seras final raw gàddu.

Boy Seras Ngor Ñaax final raw gàdd ee eh. jogaat nañ Boy Seras Ngor Ñaax Seras Ngor Ñaax Boy Seras Ngor Ñaax Boy Seras Ngor Ñaax

léegi lutte simple dootul neex bi. booy seet ngor ñaax. booy seet na la wa waaye yow gis nga jël <laughs> usine technique Doudou Sané usine technique Doudou Sané ee eh, pad Doudou Sané nee nañ la pad Doudou Sané usine technique ku daan tase caaka fay arbitre naan leen bëre leen Doudou Sané usine technique Doudou Sané usine technique

hee duudu xaw na laare duudu saane daan na usine technique duudu saane daan na usine technique ñu noonu seeni bu bari ñi ak njool bu sana seeni bu bari ñi ak njool bu sana final poids léger bi seeni bu barñi ak njool bu sana seeni bu barñi moo leen won njool bu sana moom ngeen jàkkaarloo final poids léger bi seeni bu barñi ak njool seeni bu barñi njool bu sana seeni bu barñi njool bu sana barñi njool bu sana seeni bu barñi njool bu sana ak njool bu sana final poids léger baa noonu seeni bu barñi ak njool bu sana jël ko ña nga ca suuf xew seeni bu barñi ak njool bu sana <laughs> njool bu sana seen joor seeni bu barñi seen càmmoñ ñaari xale yaa ngi bëre final poids léger bi seeni bu barñi ak njool bu sana seeni bu barñi ak njool bu sana seeni bu waaye nee naa leen bu leen fàtte dimaas bii di ñëw Jax day ñëwaat fii tegaat fi mise su 6 millions seeni bu bari njool bu sana seeni bu bari ñu njool bu sana seeni bu bari ñu njool njool bu sana seeni bu bari ñu bu sana seeni bu bari ñu njool bu sana seeni bu bari ñu njool bu sana bu takk na njool bu sana takk na ko lan mooy laa ilaaha illallah ñaari xale yaa ngi bëre seeni bu bari ñu bu sana ñaari xale yaa ngi bëre hee seeni bu barñi ak njool bu sana ñaari xale yaa seeni bu barñi ak sana seeni bu barñi njool bu sana sana bu bari ñu bu rëy sana daan ko njool bu sana daan ko njool bu sana ngi noonu njool bu sana jël na final poids léger bi laa ilaaha illallah ndeysaan Talfa ngi noonu Doudou Sané biram Koungkoung finaalo yàlla finaalo yàlla finaalo yàlla finaalo yàlla ci diggante Doudou Sané ak Biram Kungkung wala nga ne Caaka Fay wala nga ne bis bi finaaloo yàlla finaaloo yàlla final poids lourd ngañ seen ñëwul ordre rek moomoo bu ordre bokkul tey ah kooku du dara arbitre sifflé na na ci diggante Doudou Sané ak Biram Kungkung waaye nee naa leen jag su dee ñëwaat 6 millions di fii ci biir arène nationale xool leen Dour Sané ni muy doxee final poids lourd final poids lourd biram kunkung duudu saane caaka fay duudu saane que le meilleur gagne yooru na duudu bañ na na ko demul biram bëreel da ngay am avertissement biram ak duudu biram ak duudu biram kumpu

Alioune Sané Birame ak Doudou Sané Birame Koungkoung Doudou Sané jël na ko Doudou Sané nga koy bëreeloo Birame da ngay am avertissement Birame ak Doudou Sané Birame ak Doudou Sané pause wala pause la wala noonu. ak Doudou Sané. arbitre sifflé waat na. ci diggante Doudou Sané. Modou Lo caaka bëreel caaka bëreel. nit ku ñuul ke ak Doudou Sané. Doudou Sané Thiaka Faye ay waay bëre leen sedd na de ay waay bëre leen sedd na bëre leen dafa sedd biram kunkung biram kunkung Doudou Sané biram am na benn avertissement pause nañ ñëwaat Doudou ak biram waaye bëre leen daa sedd Doudou Sané Birame Koungkoung ay waay bëre leen seet. bëre leen waay sedd naa. ay waay bëre leen waxoon naa fi nekk di puusante. eh. Doudou Sané tënk duudoog biram duudoog biram duudoog biram bu dimanche na Ibou Ndiaye jeex na jeex na jeex na eh.